aywa dix-neuvième leçon ci rul adab fukk ak juróom-ñeent laa tax taran bul tànn taxaadisal aqraani waxtaan ak maas gi anil julusi ci garam palaas yi en defoo fa moom yaa faani yow mi jeex ci yàlla yow mi yàlla dimbale may la bul toog ci garam palaas yi rek di tel teli idan soo ko defee wallahi wala tatma bul yaakaar mukk nag bi na lil asraar ci am ay secret kana déggoo secret fu ñu koy amee ah secret secret rek la sirru su tasaaroo charru lay doon aw ay ndax fa sirru secret laa yunaalu deesu ko amee indel ijhaari fag béral di tel tel rek mun da tax nga am mbóot laakin waaye ida laazamtahu ndem taxoo nga ak sab sëriñ fil gaalibi ci li ëpp ci temps faqat tafuzu amaana nga texe minhu ca moom bil mataalibi ci càkkutéefi li nga bëgg danga ko am faqat tafuzu amaana nga texe minhu ci moom bil adwaa ci wàlle fay mel ni dalay wàll ulaykal qawm laa yasqa jalisuhumu ne ñoo xam ne booy toog ak ñoom dañ lay pikiir sirru ñi ko xam wala ñu ñam xam nañ loola wa hiya moom thabitatun lu sax la inde rijaali fa góor yàlla kon nag inte bi yeewul balaa yeewoo passé